yéen mbokki Touba yéen mbokki commune Sëñ Modou wala mbooleem loo xamante ni ñu nekk ci biir dëkk bi la te sori te mënuñoo ñëw waa kër Serigne Fallou Matar Diaw mooy seen place yi nga xamante ni danoo nekkoon marché Ocass te marché bi xam ngeen ni wàllum jàngoro ji nga xamante ni moo fi génn tax na ñu tëj marché bi mbooleem bagage bu ngeen bëgg su ngeen ko commandé ci numéro yi nga xamante ni ñu koy bëgg a lim ak place yi nga xamante ni borom place yi xamoon ngeen leen ku ci demee ni Ablaye Diop Mouhamed Diaw Ablaye Gueye Seydou mbooleem bagage yu ngeen xamante ni bëggoon ko su ngeen wootee ci numéro yi ñuy bëgg a lim daan leen ko indil libération gratuite 77 609 24 31 wala nga woote 77 252 36 36 wala nga woote 76 606 06 02 soobi Serigne Touba daan leen ko indil ba fa ngeen fa ngeen ne te du ngeen ci fay dara soobe yàlla. corniche sëñ moodu nag fi la place bi ne ci dépôt bi. gérant bi Modou Afé Diaw waaw ku ñëw rek soobi sëñ Tuubaa daan la ko wàññil ci soobe yàlla